غشيت منازلا بعري تنات فأعلى الجذع للحي المبن غشيت دكينا منازلا أيكر بعري تنات يمك شعري تنات بربلا فعلى الجذع تبقى خروة وهو بربلا li la xay yi jëm ca carte ga al bi aji sax maa ngi jëm ci carte bi nga xam ne dafa sax ci dëkk moo tax ma dikkal wàll yooyu dikkal naa waray tinaat ak alal ji ak ak euh, alal jisi yooyu yëpp barab la rek ngir ba sax foofu dégg nga xam nga léegi dëkk boo xam ne ay quartier quartier dafay ci biir moom na bi moo tax mu dem ci dëkk yooyu mm-hmm. taawarahunna wutu wante na ci ñoom sarfu daari soppandiku jamono hatta mhm. afaw na bañ làpp ah wa kullu munhamirin ak bépp niil wi aji yool gi mhm. aji am murin mhm. ne dëkk yooyu soppandiku jamono rek mooy xew-xewi jamono yi nga xam ne mu ngi dal nit ñi tey mu neex suba mu naqari. waaw yooyu footu wante bañ mujj ràpp. Uh-huh. ak miir ya fay wàcc mooy taw yu am dënn taw yu bëri dënn ya fay uh-huh. moo tax dëkk ba mujj ràpp. waxaftu taxawal naa bi ci dëkk boobu alxaluusa gëlëm ya ndaw ya. Uh-huh. alak tiyaabin ànd ak njàqare ndax barab ba ràpp na lool wazaaka loolu li ko waral mooy tafaarutu shawqi mhm. jéggi jiitoog cofeel almuanni bi aji sonale mhm. cofeel goo xam ne dafay sonale yàgg ci man lool mhm. moo waral ma dem ba jël sama gërëm gu ndaw googu taxawal ko ci dëkk boobu ànd ak njàqare nag di xalaat ràpp gi ràpp dëkk bi ràpp danga ci taxawee loo def mu ne usaa lahaa maa ngi laaj laajanteeg barab maa ngi laaj barab ba te kenn nekkatut ñoom dañ laan def barab buñ sop dégg nga amoon fa ay soppi buñ demee fekk soppi yëpp dem dañuy wax ak barab ba mel ni dañuy jëneer ne soppi yaa ngi fa ba léegi daal gëmatuñ ne daal gars yi dem nañ moo tax ñuy wax ba xam mhm. usailuha maa ngi laajanteeg barab boobu waqat safahat te fekk sotteeku na dumuuci samay ronqañ ka anna mafidahunna daf mel ne seen ak sottiwaay mhm. gurubu channin ay baag ay baagi mbuus gu ràpp la maa ngi laajante barab ba ci jamono boo xam ne ronkañ yaa ngi tuuru may jooy ba mel ni ronkañ yooyu di tuuru ca bët ya sotti googu daal dafay niroog dégg nga euh, mbuus gu ràpp am ay bën bën ni mbuus ga di sotteekoo mel ni ay baag xam nga mbuus amul bën bën <laughs> waaye na muy sotteekoo mel ni baag yu sotteeku dégg noonu la bëri di jooyee maa ngi jooy ronkoñ yu bëree bëri bëri la maanaam jooy naa bu mën a tumatee sama bopp dégg nga gis nga lii lépp na la fàttali sa tukki mi sa tukki mi doomu aadama amul soxla ci àdduna lu mooy tukki jëm ci borom waaye ñu bëri fàtt nañ fàtt nañ la leen tax a jóg fàtt nañ li tax ñu ñëw ci àdduna di wuti wërsëg woo xam ne yàllaa leen ko gàddul ba fàtt ba fàtt li leen tax a jóg waaye damaa aadama tukkee ko tax a jëm ci ngërmaane boromam jaam la buñ tënk ne ko borom Ihya andee ko jàng ci dars yu buñ tënk ne ko sa ngore aj nañ ko ci dem màkk ci misaal aj boo ajee ba pare ñu def la buur dégg daal di la goreel mm-hmm. bu fekkee ne am nga gàllankoor ci yoon wi heggoo mag danañ la goreel rek waaye nag doo yegg ci nguur ga nag moom mm-hmm. dégg mm-hmm. su ko defee mu ne jaam boobu am na ñetti étape yu muy jaar bi ci njëkk mooy préparer pour wàccaay aju aj loolu mooy étape bu njëkk bu nit di jaar mooy wuti xam-xam préparer ngir soobu yoonu njub ñaareel ba mooy soobu yoon si yoonu aj wi nag pour jëm màkk tàqali ko ñoo ñag këram ak yëpp kon ñaareelu étape pour doomu aadama mooy fexe yar bakkanam tàqali ko bànneex yi bakkanam miir miin ak caaxaan yi ak bëgg-bëgg yëpp ngir jëm yi nga ci boromam ñetteel étape mooy xegg màkka soobu ci ponki xaj yi ak barabi jaamukaay yi ngir xeñtu boromam kon sa ñetteelu étape mooy jege yàlla bu ci jëf lu baax ak di fuglu sa borom ak di eh, sellal sa wéetaay sa digganteeg sa borom ñeenteelu étape ba nag mooy aj nga ba pare dajeeg sa boroom rek daal di am texe su ko defee yow sa ñeenteelu étape mooy aj mooy am nga tëmkiin ak ndëgër laay ci xam sa borom daal di daal di moom mu jox la nguur jox la nguur goreel la gannaaw xam ne yàlla ak dëgër moom noflaay rek am amatul coono te defee yërëm naa koo xam ne ni am na leneen lu ko yitteel ci àdduna lu dul lii lu jàpp ne dafa nekk ci tukki ci laxas jëm ci boromam yàlla buñ ci bokk dégg defee bu fekkee ñoom ñooy mën a jooy xewal yi àddina yi leen rëcc ak wéttalikuwaay yii hmm. yow war ngaa mën a jooy sori gi nga sa borom ak wéetaay gi nga wéet sa digganteeg malawul ala bu xamaamatin maa ngi jooy kom jooy ak pitax te doo ma ngay xoo xadiilan piccax mu ñuy wax xadiil mu fajjaatin di kuñ jàqaroo moom pitax moomu ala fananin mu ngi ci kaw banqa wala boog nii ma ngay ci kaw banqaas hmm. mu maa ngi jooy ni pitax moomu di jooyee hadiin noonu lay jooye sama gaa ñu nekkoon ci barab dañoo jàpp ne ñoom ci yamonam noox dafa am pitax muñ muñ ñàkk muñ reyoon daal mboolem pitax yi ba léegi pitax moom la ñuy jooy na lépp waaye daal lu man a xew ni pitax mi di sabe man mi noonu lay sabee pitax mi ni mu jàqee di jooy ca kaw bànqaas ba man ni noonu laay jooyee mu ngi dugg ci li ko tax a jug nag hmm. alik nii jottalil ma leetar bi yaa Uyayna yow Uyayna ilayka jëm ci yow xawlan wax alik nii jottalil ma xawlan wax ilayka jëm ci yow yaa Uyayna yow Uyayna Uyayna lay wax ak hmm. mu ne ko Uyayna léegi jëral sama leetar bi nga joxal ma ko sa bopp kon moom la ko yéen hmm. dégg fa lay sa nekkul yarut du delloo mazhabuha yoonam ak tasan ni njort sama wax ji ay njort du ko delloo gannaaw déedéet ok sa uhdi mhm. danaa ko haddiyaal ilayka jëm ci yow mhm. ilayka an nii sori ma mhm. wala ilayka an nii tee nga maa ba yow yéen sama lettre bi ma jox la ko muy haddiye lettre bi fu mu commencé mooy tee nga maa ba nga ne ko lan mooy lettre mu ne xawaafiye ay daaneel la silaami yu mel ni doj silaam la bi kasir siin la jamoo salimatun mooy al xijaaratu isa stamarat ndem continue na falay sa nekkul yaruddu delloo mazhabuha yoonam attazanni ay njort de sama wax ji ay way la yoo xam ni xasida boo ci jàng ba daaneel rek mu mel ni doje daanu sa kaw ay defe naa wala nangam wala mën naa mu bakkar mën naa am tax mukk ma bade danaa sànni xasida yi sa kaw ba nga yëg métit bi biir na ci xasida yooyu adiinu laay faye man yëb xii kuy sàkku azaati samag lor mudaayinatal mudaayini comme fayanteeg aji leb la ja fal ya dinni kon na ma lebal lu ko neex xasida boobu laay fayee ku mu bëgg a kom comme fayanteeg dégg nga aji aji fayante ji rek mudaayinatal mudaayini comme fayanteeg aji leb la ja ba tey maanaam nit bu lebalee nit nañ koy faye hmm. mu ne noonu laay faye rek xasida bi ne ma bëgg a lor mu fay loolu ndax ku ma ku ma bëgg a lor la ma lebal mu fayee ko xasida bi kon ku nekk na ma lebal la ko neex ataxsulu manax da ngay gàcceel naasiri aji dimbale ma wa tuxisu ngay dëgëral absan waa absu wéyeenu dafa doon dimbale waa absu ci kaw waa banu asad mu ne ko ndax da ngay gàccaal may dimbale di di da ngay dimbale di dëgëral absu ayer bon bun xaysin ay ayer bon bun xays ñëw leen leen mi an ni ñeel ku dugg ci lu yaram nekkut mi an mooy kuy dugg ci lu yaram mu ne kaa leen ñëw kaa leen yéem xoyee ni mii nga xam ne mu ngi dugg ci histoire boo xam ne yaram nekkut ci hmm? daf woote gi pour yéemu la rek maanaam man daa yéem naa xoyee ne mi dugg ci lu yaram nekkut rek mu ne yer bon bun xays ñëw leen leen mi an ni ñeel kuy dugg ci lu yaram nekkut maanaam yéem naa waa ji daal ma ngay xas oyee nag ne ko ka annaka daf mel ni yow min jimaali bani uqayshin yaa ngi bokk ci gërëm yi banu uqaysh yu xaaxaw dina yëngal xay fa rijile xal fa rijile yi ci gannaaw ñaari tànk bi shannin ci mbuus gu ràpp dañ laan jël mbuus buñ bëggee sàcc ci gërëm yëngal ko ngir tiitalee ko gërëm gi muy daw mu ne nag yow mm, ab su ku nga mën a daw lool bu mel ni ci gëlëmu banu oxay ci yi nga bokk nga xam ne boo yëngalee mbuus rek mu commencé daw takkuun da nga nekk léeg-léegi na amatan di banjooli tawran léegi-léegi yaag banjooli yeneen tapet nga xam ne dawra lay def wa tawran léegi-léegi xawiyar riix yi ngay ngelaw luñ daaneel tan suju dana rabb kulla fanin bépp mm, yoon wala bépp fan dégg nga mu ne yaa ngi léeg-léegi daal nga mel ni banjooli boo mel ni banjooli nag léeg-léegi da ngay gaaw lool di daw rek yoon wu ne nga jaar fa mu ne maanaam da ko woon a rek te man na mbébétal bi aadahum alkande ñooñu ngay dimbale wastabqi te nga sàkkoo desal sa bopp minum ci ñoom fay naka naka yow soo fa tuturaku xalti nañ laa bay bàyyi wa taman ni ak ay mbébét mbébétal jàppal ne ñooñu ngay wax dinañ alku ñooñu nga bëgg a dimbale danañ alku yow nag fexee mucc waaye boo muccee yow rek fay des doo kenn ku la dimbale si mbébét rek ngay nekk la daa fa àll ba lay sa nekkut bi ci àll bu ani suñu aji wéttel walay sa nekkut bi ci moom ak dalilu aji bi mutma ay nin ci mm, dalwaay mm, ak dalilu aji aji wane yoonte bi mutma ay nin ci dalwaay danañ leen alak ci àll bi nga xam ne kenn du xam kenn ku leen wéttali te kuy wane yoon du am fu mu taxaw fu mu mën a dal bay wane yoon maanaam àll bu wéet bu kenn nekkut amul kenn ku fay wane yoon foofu lañ leen alagee dégg nga dida xawalta boo jéemee fi asadin ci banu asad fujuuran ak ak yàq fujuura mooy kàccoor boo jéemee ci banu asad lu bon lim ci na mu rek mooy boo ci jéemee yàq fay nii nag man lastu nekk moom min ko di bokk ci yow wala su yow yi nekkoo min ni di bokk ci man bu dee da ngaa bëgg alag waa banu asad wala nga bëgg leen yàqal man ak yéen set nañ man set naa ci yéen bokku leen ci man man bokkuma ci yéen foofu ñoom diri ñooy sama mbuum koŋ allati bi nga xam ne istal amtu dégg nga ngandaayoo naa ci ñoom wala istal amtu sol naa fiihaa ci ñoom mooy def naa ko daal ñuy sama déron bu woon ko dégg mm-hmm. ilaa nisaari jëm ba bisab nisaar wowum ñoom mi jën nii ñooy samay pakk nisaar barab la boo xam ne dañu fi daan xeexante mhm. maanaam ñoom ñoom laa ngandaayo woon aaroo aaroo leen mel ni ñooy sama mbuum ko ngi ma sol jëm bisab nisaar te ñooy sama pakk ñooy ki nga ni daal lor wu ma bëggal dal ñoo koy baare waxum ñoom banu asad mhm. wara du rot nañ aljifaara ndoxam banu tamim ma mhm. aljifaara ndoxam jifaara la tamimin ca tamim rotoon nañ ndox mi waa banu tamim ñoo ko moom mu tudd jifaar wom ñoom ashabu yowmi onkasa ñooy bisab ñooy gaa yi bisab onkasa ba maanaam bisab onkasa guerre la woon bu xewoon ci ñoom mu ne waa banu asad ñoo ko gañe woon de inni naka man shahidtu seede naa lahum ñeel leen ma waatina ay barabi xare saadiqaatin yi way dëggu ataytuhum dikkal naa leen bi wuddi sadri ci cofeel ak dënn min nii ba tukkee ci man waa bu nu asad yàgg naa leen ci ay xare de ñuy jàmbaar lool dëgg lool ci toolu xare ya duñ daw mukk ma leen nag fekk maa ngi leen sopp lool waxum ñoom saaru ñoo doxoon li xujrin jëm ci xujur fii xamisin ci ab xare wa kaanu nekkoon nañ yow ma dalika kerek bis boobu inda zanni fa sama njort xam nga xujur mi mooy bàyyi ibnul xays xam nga waa banu asad ñoo ko rey moo tax ibnul xays xasidaam yëpp xas waa banu asad la ak jéem a fayeeko ant ak ñoom moom nag ñu ngi lay ci loolu mu ne waa banu asal ñoo doxoon dem ci xujur de tax wóor na mu ne ba ñuy dem danañ xam lañ bëgg mooy buñ demee danañ fagaagal bàyyi am ur xay si boobu <laughs> dégg nga waxum ñoom zaxafu ñoo direeku li xasaana jëm ci bi zaxfin ci mbooloom xare raxi bi aji yaatu yoon dégg nga arana bi aji am ay mbiccit maanaam ay cet nuur yaxin nii dégg nga bi aji diis ñoom ñoo diree yore xare boo xam ne ni dégg nga yoon wu yaatu la xam nga xare bu yoon yaatoo mooy xare bu bari na xare bu bëree li ñuy ci yoon bi li ñuy jël ci yoon bi dafay bari dégg nga bu am ay mbiccit dégg nga maanaam xare bu gudd ma ay cet bu diis ñoom ñoo diree ku jëm ci xasaan yore xare boobu bi kulli mujarrabin ànd ak bépp jàmbaar duñ nattu këllay si mel ni gaynde yes mu dana yëkkatiku ala aw saalin ci ay yax zayaalin yee am yee ama geen yee ama koonu geen refan nit ñi aji ñu ngi ànd ak mm, xare boo xam ne ni ña fa nekk jàmbaar yu yàgg xare lañ fas wañ war fas la xam ni yax yu dëgër la yore eh, am ay geen yu gudd gudd fas yu mel noonu lañu war jëm ci xare bi wa dumurin ak fas yu xoos kal xidaaxi mel ni bantu fett mu sawwa maatin ree ñu defal màndarga alayha ci nekk na seen kaw moom fas yooyu marcherun mbooloo yoo xam ne ashbaahu jinnin dañoo ñu roog ay jinni <laughs> fas fas yu xoos lañ ba mel ni bant fett su ko defee yuñ defal mandarga yoo xam ne boo leen xoolee rek xam ne fas yi yàgg nañoo dugg ci xare fas yooyu ñu nekk ci kaw mbooloo lañ yoo xam ne ngeen xool ne waa mbaa mbaa moom duñ ay jinne noonu lañ niroog xadaata taawaratu suba sa nga xam ne jottali ko wante na ko sama foofu bii doon jaasi weex du fee na jëñ nañ leen ilayhi jëm ci moom sërraxa ji ci pënd almukin ni gaa suturaal mbooloo ma keroog suba si nga xam ne ni jaas yi weex yaa ngi jottalante ko ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, jokkalante jaas yi weex yaa ngi jokkalante ku nekk di dóor ci lañ jëqi ci lañ jël fas yooyu rek daq leen maanaam ñu dàq leen ñu jëm ci xare boobu nga euh, mbooloo pënd pënd bi fas bi di jëqi mm-hmm. boo xoolee nëbb na sax nit ñi mënatoo leen seen fas waa ngi jug fas fas yi dàq nañ leen ñu jëm ci xare ba pënd ba nëbbu nit ña ñu jëm ci nag si jaas yu weex yi nga xam ne ñoo jot li ko wante ca xare ba mm-hmm. mu ne walaw an na ni dafay tagg waa banu asad ne ay jàmbaar lañ xarekat lañ walaw an ni bu fekkoon ne man ataantu ko topp naa la fii umurin ci ay mbir xaraatu kon mu fëgg mm-hmm. na daamatan ak rëccu min zaaka ngir loolu sinni samay bañ sama bañ mm-hmm. yi nga bëgg yow xooyee na konoon danaa fëgg sama bañ ngir rëcc maanaam danaa mujj rëccu rek danaa mujj topp ga ma la topp ma rëccu ci ba nga xam ni du ma xamante leneen lu may def lu may jàpp sama bañ di ko fëgg loolu mooy jëfi ku rëcc maanaam moom dafa méngoo banu asat su ko defee muy xas oyee ni mi nga xam ni moo bëgg a dimbale abtu ci kaw waa banu asat parce que boo ko defee daal da nga rëccu dañ ñoo ñëpp danañ alku yow ñi bala doo am benn wéttal nga des ci toroxtaane te banu asad ay jàmbaar lañ boo dimbali ab siit boo ñëwee fekk fi ay jàmbaar rek loolu daal la ko bëgg a wax su ko defee loolu moom mooy dars bi nga xam ne moom la ñu jàng tey in uriidu illal islaah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh